togg def ko waaw waaw def ci suukar def ci suukar lay nekk ah, sama temps jël leen wax ci ay yow koko bi nu mu tudd <laughs> doo wax koko bi yow war nga ko xam non mooy mooy koko boobu ñu doon togg noonu ak kii mm. euh, saaf ko ak euh, ak suukar boobu moo ko def def ko buur waaw ngato ngato koko ngato koko ngato koko yàgg ngeen yéen ñu lay xamal suba wuyu ma indi nga koko bi ci plateau xëccoo ca ca école ba waaye mi ngi noonu fàttaliku leen ci taabool euh, a lu am solo. waaw Albary euh, la ñu jël comme exemple tey euh, tey ñi yor ay sujet de qualité. yor mm-hmm. ay xari laadum yu rafet mais aussi tamit ci beneen côté bi ñu ngi produire ay xari local. Mm-hmm. Euh, tey jii ñoom nag amoon na ak ñoom benn interview. Mm-hmm. ñu xool seen li nga xam ne jàllale nañ ay message bu am solo nag. xam naa bu ñu ko découvrir ñu ñëwaat ci plateau incha allah. ngi tudd Samb Sonko. nekk bergerie Albary bergerie Albary mu ngi nekk Yaraax juste en face gar en bi waaw foofu la bergerie Albary. bergerie Albary yàgguñu si élevage yàgg nañ si élevage ndax bu ma nee yàgg nañ si élevage maanaam ñun si élevage lañ juddoo waaye élevage laadum tamit yàgg nañ si mais yàgguñu si yenn yàgg yi waaw. ah ndax nit moom doo tagg sa bopp da ngay bàyyi nit yi taggal la ndax yaakaar naa ni éleveurs yi fi jaar yëpp apprécier nañ élevage li ñu exposé fii. te wax dëgg fa yàlla moom amoon nañ embarras de choix pour indi ay xar mais ginnaaw yàlla moom bañ ñu indee xar yi moom ñu fi jaar ñëpp kontaan nañ. xar bi ma tee doomu atomique la. yaa ji nekk euh, Noura. Noura di doomu kii nii Noël. di sëtu séeréer nekk na xar boo xamante ne wax dëgg fa yàlla am nañ si yaakaar mu ngi am 16 mois. am nañ si retour moom ndax nee nañ moom xar xar yi ñooy woo seen bopp nit yi duñu woo xar ndax boo toogee si rukk liggéey moom. ak fu munti nit fu mu munti nekk boo xamee ni fii nii ay xaru qualité moo fi nekk mun na jóge Ziguinchor ñëw ba foofu bu nekkee xar ko ñor pour xool xar yi ndax ay ay bête de qualité ñoo fa nekk wax dëgg fa yàlla. grand Ibrahima daa doxee ay soxlaam quoi waaw. message bu mu munti jàllale moo nekk staff bi kontaan nañ ndax Ibrahima mu ngi def liggéey boo xamante ne liggéey bu jéggi dayoo ndax day yeneen saa yi sax day bàyyi ndax ñëw toog foofu noonu si xar yi nekk na nit koo xamante ne ku bëgg xar la ginnaaw. grand Issa mii tamit moom tamit si staff bi la bokk nit na nekk na nit koo xamante ne nit ku baax la bëgg na xar yi moom tamit bu liggéeyee balaa moo ñibbi dina jaar si xar yi wala balaa moo ñëw pour dem fu muy liggéey dina jaar si xar yi ba pare xam xar yi si ban condition nañ nekkee si ban état nañ nekkee balaa ñoo dem liggéey. non base de femelle bu ñu yor moom bëri na base de femelle bu ñu yor bëri na comme boo xoolee femelle bi femelle bi doomu kii la doomu Alain la doomu Alain moom jur mbote ba la tëdd mbote bi. Papy Dieye fixé macha allah la waaw fixé macha allah parce que yaayam tamit doom macha allah Papy Dieye la léegi nag moom moom nañ teg si UNESCO junior UNESCO junior yow xam nga ko doomu UNESCO ak Lisa mu jur ay cheikh yu jigéen ay mbote yu doy waar mais kenn ki nañ indi baay foofu keneen ki boo xoolee kii tamit doom Boy nduur la Boy nduur ku ko xamul dégg nga ko. doomu am dan merci moom moo jur kii kii yaayam surtout général la moo tax mu indi weexaay bii weexaay général la indi. kee tamit boo xoolee sëtu mag la weexaay mag la indi nekk na xar bu doy waar moo tudd njukkal kii doomu booy nduur la tamit yaa ngi nekk doomu kii nii doomu gaynde gaynde boobu doomu mursin la ak ak ak ak ak tawféex moom tamit si grand taala nañ ko jëlee nekk na nit koo xamante ne nit ku baax la wax dëgg fa yàlla jàppale nañ suñu élevage quoi base bi nañ fi indi mais am nañ ay xar ay xar de qualité tamit nit moom wax dëgg fa yàlla booy dem da nga naan maa ngi dem rek ndax booy dem moom munoo ne lii moo gën lii boo ko waxee rek juum nga parce que boo ne lii moo gën lii xar boobu nga ne moo gën kii nii kooku mun a jur lu gën leen nga doon tagg moo tax xar yi moom da ngay toog xaar rek ku nekk moom mooy tagg boppam boo taggee rek di nga juum. waaw lu may wax mbokki éleveurs yi moo nekk dañaa war a man sama xalaat éleveurs yi dañaa war a ut syndicat créer benn syndicat boo xamante ne parce que du yoon à chaque fois nga yeewu rek ñu ne la. repasse bi yokku na pour quelle raison repasse bi du yokk waaw message boobu laay jàllale dangaa war a créer suñu syndicat sendica boo xamante ne moom moo ñuy kaasal suñuy droit ndax mënuñaa yeewu chaque jour ñu ne ñu repasse yokku na repasse yokku na pour quelle raison te en plus nañ nañ nañ nañ nañ nañ favoriser maanaam euh, production locale production local moo nekk tey tabaski bu jotee éleveur bu nekk fii kenn mënu fee juddul ay champion ñun ñëpp mënuñu juddul ay champion ku nekk éleveur bu nekk wax na takk baasam tabaski bu jotee ñun ñuy consommer local yaakaar naa ne bu ñu defee lool xar dootul jóge ci feneen di dugg si fii. ñu ngi liggéey si projet bu waaw Ibrahima moom nekk na nit koo xamante ne wax dëgg fa yàlla bu ñu doon wax si moom duñ fi jóge chaque tabaski xam nga rek nit ku buy def lu baax tamit am na ñoo xamante ne dañ koy bëgg am na ñoo xamante ne duñ ko bëgg Ibrahima chaque tabaski dina may plus de dix personnes xar ñu dina plus de dix personnes dina leen takkal ay xaru tabaski. te xar yaa ngi foofu si suuf si si berger bi nañ leen di yor ñun ñoo leen yor. Euh, mu nekkoon reportage bu am solo Mbaye. Euh, xibaar yi euh, tey euh, gis dégg nga tey euh, Salma message bi mu jàllale mhm. en tant que jeune tey ji ñoom ay ndaw lan dugg ci élevage tey yor ay xari laadum doo gisee kooku mu yor mulsu la mulsu doomu atomique atomique du doomu bëtuñee mhm. tey ay doomu anour ñu nga fa mhm. anour di doomu ki nga xam ne mooy mooy euh, ki nga xam ne mooy euh, ci euh, bokk ci ligne bu baax. Mm. mais tey mu nga ko xam ne Boy Ndour Boy Ndour nga gis ni doomu am daan la. Mm. maanaam boo xool xar bépp goo xamante ni sama mu ngi ci milieu élevage bi rek. Mm. tey ñoom yor nañ seen doomam mais tamit. yemuñu ca. ñu ngay mhm. dem di consommer local dégg nga mu ne ci biir bergerie ba yor nañ fa espace boo xamante ci la ñu produire ay xaru tabaski. Mhm. tey loolu c'est très important dama ngay dégg des fois éleveurs yi ñu ne la aw ma espace wala aw ma sécurité. Mhm. toujours ma ne leen ni nga def. ba am espace yi laadu mi doo ko defee di nga am espace u ni ngay ni nga xam ne ngay ko man mënuma concevoir tabaski jot éleveur dem daral di jëndi xar yow nga ne man éleveur laa li ngay soxla pour nga koy consommer pour tabaski. Mhm. wala pour euh, sa tudd wala pour tey nga soxla ndawal nga ne da nga koy jëndi. Mhm. c'est impossible. xam nga mënuma ko mënta nekk loolu mënta nekk léegi nag ñoom waa bergerie Albary am na projet boobu euh, moo tax tey ñu jël exemple comme ni ñu ko waxee. ci émission mhm. bi passé ak waa bergerie Xinaan. Euh, ca Mbour ñii tamit nekk Dakar di def loolu maanaam moment bi éleveur yëpp dañoo war a tey. jëm ci li nga xam ne mooy opération tabaski bi naam laadu bi ji mhm. baax na naa aussi tamit liggéey la dafay créer emploi mais aussi tamit ñu jëm ci li nga xam ne mooy consommation locale ci mhm. produire ay xaru tabaski euh, di góor góorlu ci laadu bi bu ko bergerie yëpp defee euh, bëri na am na bergerie yoo xam ñu ngi koy def ñooñu mm-hmm. tudduma leen mm-hmm. euh, mais damay joxe exemple rek ndax parce que ñoom ñu nekk ci milieu élevage bi xam nañ ñooñu mais tamit ñi nga xam ne dafaguñu ko moo tax tey ñuy wax pour ñu sensibiliser leen ñu daal ci góor góorgóorlu daal Salma Ibrahima mm-hmm. Fall euh, loolu dina nekk lu am solo bu ko defee bu ñu tollee foofu dinañu wàññi jéggaani wala ñu bàyyi ko sax jéggaani bi nga xamante ne chaque événement moom la ñuy jéggaani di dem Mauritanie di dem Mali dafa uti xar saa nekk loolu dañuy gis que dafay gën tax xar yi gën a cher Sénégal bu fekkee nag dañ ko euh, créer mhm. wala yar fii de au dina nekk lu nga xam ne dina mën a disponible mhm. Sénégalais yëpp ku ci nekk prix boo yor mën a am sa kuy mhm. daal di tabaski wala bu fekkee da ngay tudd aussi nga tudd waaw loolu loolu daal moom la ñuy waxtaane euh, ndax tey ji exemple bi waa bergerie Albary euh, tey ji euh, wane nañ ko ndax ay jeunes lan buñ duggee ci élevage bi naam yàggul mais def nañ ay recrutement ay sujet de qualité aussi tamit tey wut ay ju am fa base de femelle bu wóor bu fa nekk da gis tey ay doomu Alain tey nga nga ko fay gis ay mm. sëtu UNESCO nga ko fay gis mm. ay doomu Boy Ndour nga ko fay gis ay doomu bâtonnier kon kooku bu dee bay man di def moom tamit di produire ay consommation locale mm. tey nga xam ni yor na ay xar yu baax yor na ay laadu mais mu ngi fàtte fàttali ko askan wi mm-hmm. tey dégg nga booy mu ne moom dina chaque tabaski dina génn lu plus de dix xar tey loolu projet la mm-hmm. tey boo xoolee tey ñaata loolu mu ñooñu mu jox lu ma dix xar mm-hmm. ñu koy tabaskee bu ko jëndi woon pertement la mais tey est-ce que tey ñoom du ñu am beneen projet pour tabaski di ñëw ñu ma gën mën a génn vingt mhm. man neew naa minimum minimum éleveur war na mën a génn trois xar minimum loolu investissement la de mbay tey jii consommer local bi lu mën a nekk la waaye est-ce que tey dana doon lu yomb. et puis aussi seen ministre de tutelle mooy. Euh, Ali Saleh ban taxawaay la am si li nga xamante ni moom mooy consommer local bi. Mhm. ak ban taxawaay la am si jàppale ñi nga xam ne ñooy euh, yore li nga xam te mooy càmm gi. wax naa ko mardi bi passé euh, récemment rek bi mu ñëwee ci foire cercle des éleveurs de la banlieue bi wax na ni carrément président nee na mairie yi jox nit ñi suuf si. Mhm. ñu bàyyi ci wala ñu def ci élevage. Mhm. comme moom moo ko war devant tous les éleveurs. Mhm. dañ wàcc ci terrain bi def demande espace bi. Sénégalais dafa xaw bëgg lu yomb da ngay toog di kaas rek. te doo découvrir doo documenté wu. wala doo dem laaj bañ bañal la ma sàmba mooy wax nga jël ci waxuma sàmba corfate ci waxuma demba yaakaar ni loolu moo nekk nan dem ci terrain bi laaj li ñu war a laaj. jël li ñu moom. ba ñu bañal ñu ko wala ñu gàntal ñu ko li nga li ñu war a mën a liggéey ci élevage dafa fii ci Sénégal liggéeyuñu ko sax te dafa doon secteur boo xam ne dafa rentable tey nit nit di jëlee ay millions am di ko investir ci immobilier wala ci transport nit war na mën a jël plus plus que loolu investir que ci élevage mm-hmm. mais dafay fekk tey il faut nga passionné il faut nga am mm-hmm. courage il faut tamit tamit il faut nga am courage ne tey élevage rentable na mm-hmm. mais ñu ci bëri secteur boo xamante ni comprendre ko te doo ko découvrir tey doo mën a ñime pour di fa investir mais boo xoolee ci xam-xam bu gàtt rek li nga xam ne chaque jour mënuñu mënuñu la luppe mënuñu la maytu dañ koy consommer mm-hmm. boo ci investir rek xamal ni dina rentable ndax mënuñoo toog semaine fii kenn ku ci ne mënoo toog semaine nga ne doo consommer viande muy ganaar wala muy nag wala muy poulet kon nag nga xam ni secteur bu rentable la ndax dañu ko soxla di ko consommer. Mhm. waaw. Mhm. mu nekk euh, lu am solo secteur bu rentable la ndax dañ koy consommer saa su ne au delà des événements ku ci mhm. nekk yi nga bëgg a jëfandikoo li nga xamante ni moo di ndawal donc euh, buñ ko gënee rek ñoŋal. Euh, je pense que économie Sénégal dina ci gën a baax mbayum wala càmmum Sénégal aussi. gën ci gis gis gis boppam donc nañu consommer local. créer li nga xamante moom la ñuy a di ni ko euh, mm-hmm. ministre bi waxee maire yi mm-hmm. dañu rendre disponible terre yi jox ko baykat yi bu mm-hmm. baax a baax ñoom ñu mën ci mën a bay seen waar ak sécurité bi aussi di lu important ndax vol de bétail beeg yooyu c'est vrai que criminalisé nañ ko mais ñu ngi koy gis ba tey ji et loolu dafay nekk frein euh, Salma xam naa ni waxtu yi xoj nañu foofu rek lay tàggatooyee di jaajafal waa bergerie Albary yëpp ci image boobu nangu ma ko nangul ndax yombul euh, benn jeune éleveur exposé wala nga solo image ci moom confiance euh, di nuyu staff bi yëpp ñoom Ibrahima ak soxnaam ak ki nga xam ne mooy grand Issa ak mm. ñu nekk ci bergerie bi yëpp mais ma jàllale waale benn message rek ndax comme temps yi moom caara yi euh, gëm a dëkk nee naa leen mooy sama pari dafay am benn message bu may jàllale ci mm-hmm. caare sur doomu caara yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal yor ay responsabilité nan ñëw jige si seen dëkk jàppale ko ku ci mel ni euh, Mamadou Faye ah, un président cour des comptes mm-hmm. ah, ku ci mel ni Babacar Diagne ak aussi tamit Yoro Dia ministre de la communication ah euh, ñoom nañu ñëw jàppale doomi caare yi nga xam ne soxla na leen ba ci euh, ki nga xam ne euh, mooy Pape Alé Niang mm-hmm. ñoo ñëpp ay doomi caare lan mm-hmm. ba ci man mi ak keneen ak keneen mm-hmm. dëkk pour mu jàkk ña fa juddoo yaroo fa màggee fa fu manti tollu ëllëg nañu dellu ginnaaw fàttali dëkk boobu ñëw jàppale monsieur le maire El Mamadou mi nga xam ne doomu caare la comme moom ak ñun ñëpp ndax dañoo war dañoo sonn ci mbaaw ak yaraa gi ñu séex di ñu raw rek ñun ñu croiser les jàppal ma jàpp noonu bu ko defee rek yëf yi baax bëgg dinañ la ñu dëkk waaw mu ngi noonu merci Alioune Sow looloo tax ma jàllale message bi tudd cité ay tour mhm. euh, ndax tey jii ñu ci bëri dañuy nëbb fi ñu dëkk mhm. moo tax ñu rappeler leen ko euh, boo màggee rek jekku beru tey jii fàttalukul sa cosaan daal d'accord mu nekk lu am solo euh,